waaye tamit dellu siwaat ci ville morte bi aar suñu élection daal di amaloon niki talaata gi di xam ne nag ni dañ cee nërmeelu daanu lañ def ba xalangu ci bés bi a les échos xëy jàpp ni kii la di njiitu réew mi dañ ko fas yéene mayaat nag ñetti weer ñetti weer laa wax de ñetti weer ngir mu daal di toogaat ci bopp réew mi tribune moom xëy di ñu wax ni kile di Macky Sall mbaadu dafay rek daal di def li ñu dippee làq doom door doom làq ay doomam ba kenn du leen laal Sud Quotidien daal di feelu ay naataangoom jëm ci datub élection gi ñu jàpp le 2 ak lile di bésu aar suñu élection bi daal di ndërmilu ci talaata gi yor yor moom di xam ne ni li xewoon ca Diamniadio mën na nañ ko tuddee lu ne lu ne ba mu des dialogue ndax moom dafa jàpp rek ni app dil kese képp dong moo amoon ñaari fan fële ca jam ñaajo waaye nag toftal ci di xam ne nii mënees nañoo xaarandi ab coow diggante kii di njiitu réew mi ak ñile di juróom-ñaari sage ya féete ca conseil constitutionnel bés bi le jour xëy fësal nataalu ñu bokk ci askan bi di xam ne ni ñoom dañu ci guddi gu bërse te guddee ab njàqare dëgg dëgg ñoom ci lañ nekk ñoom ñile di coalition Yewwi Askan Wi Dakar jeexale xët lu yëglekaay yi ak lii di wàllum yaram dellu siwaat ci gaynde Sénégal yi jongante ca bitim réew kële nag di Abdallah Sima doon nekk ci gën a ràññeeku réew ndax mooy ki ëpp lim dugal ay bit ca tugal lii li fi gënoon fës ci ëttu yëglekaay tey àllarba yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñeent ñaanal kenn dalu jàmm jërëjëf Abdoulaye Dieye a ngi lay ah, ñaanal kenn dalu